lañuy dem ñu taxawaat ci ci procès bi donc euh, Mansour ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo di verdict bu njëkk bi bi ñu njëkkoon joxe li ñu gis ni euh, kenn koo xam ne bokk na ci ñiy layool Mame Mbaye Niang euh, dafa wax ni verdict d'apaisement la woon est-ce que jotul suñu xel tey ci peut-être li nga xam ni moo nar a tukkee ci ci procès bi. même expression bi mu génne sax la nar yoon def liggéey ba noppi nga ni yoon li nga def da nga ko defoon nag ci façon émotionnelle parce que yoon xàmmewul ku mer ak ku merul ku soxol tàng ak ku soxol tàngul yoon yoon dong la yoon day àtte rek ki tooñ jox ki ñu tooñ dëgg jox ki tooñ ak jubbanti donc expression bi mu jëkk mu jëkk gàccelu c'est-à-dire foog Sénégal yi comprendre coow li dafa bëri Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Sénégal yi pour mu gàtt pour ñëpp comprendre coow li doom la ju juddu ñu tette ko nàmpal ko ba mu egsi fi mu yegsi tey nan la juddoowee dañu annoncé ni dañuy tabax ay DAC muy demoon ak domaine agricole communautaire président Macky Sall def ko benn décret ñu am fu ñuy jëlee xaalis ñu annoncé ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards ngir tabax ay DAC DAC yooyu ma interpellé président ñu ko na dem seeti DAC yépp dem na ci baaxul xëy ndaw ñu ñuy wax tey DAC yi mënoon na ci générer lu bëree bëri ñu toog Mame Mbaye Niang ci boppam génn ci ab tele ni am na loo xam ne dalul xelam ci ci ci xaalis bi ni muy doxee ba tax mu demande ñu def fa audit audit boobu nii xaalis manqué na toll na ci tant de milliards mais ñu koy ñu wax ko ci presse bi wax ci médias yi am ñu ci bind ay téere ba mu toog ba am benn ak ñaari at xaalis boobu génnagul ba léegi de kenn gisagul ko ñu ci sanctionné ba léegi am kenn ku dellu soit ci xaalis boobu homme politique la féet ci opposition bi ñun ñu ne ko lu tax nga laal xaalis bi danga ma ko tuumaal ni maa ko sàcc wax ji dem ci yoon mu indiwaat wax ji mais wax ji dafa am xaalis bu rëy boobu la Sénégal yi na génn parce que xëy ndaw ñi Amadou Ba doon wax tey xaalis boobu moo taxoon ñu taxawal këf kooku tudd Prodac pour mën cee tabax ay dak jàngal ci ndaw ñu agriculture élevage pisciculture ak yu mel noonu mais ana xaalis bi loolu la ñuy laaj ana moonin bi. moo gën coowal politique yi nga xam ne am na déjà ñu ci faatu ok yoon def atteem ba noppi ñu ni ki doon atte ci ñoom am nañu ko tuumaal ni militant wu ko ma doon atte la c'est un problème seen coowal politique tax ñuy décrédibiliser décrédibiliser suñu justice ak suñu magistrat yi d'accord parquet bi moom mooy toppee mais parquet bi tooñuñu ko moom moo am sañ-sañu toppee mais euh, ñu nit ci mbedd benn Birahim Touré la attaqué man Mansour Diop parc bi dañ ne dimbali Birahim ànd ak moom mais bu yoon àttee liggéey ba noppi parc bi tëbaat ni non man awma satisfaction te Mame Mbaye Niang mi ñu mu ñu mu ñu wax ni ko moom mi doon topp ne dañ ko tuumaal dafa jubilé kontaan ñaari fan après mu génnaat waxaat ni xaalis bu ñu ma ko joxee damay jël kër Ousmane Sonko jaay ko ñu génn ko mu nekk STF ma jaal jaay ko jël xaalis bi xaw ma tabax ci ay daara xaw ma lan waa daara ni ko du fi bëgguñu. léegi sénégal yi pour ñu comprendre Mame Mbaye Niang jox lañ ko dëgg nee nañ ko dañ la diffamé mais sénégal yi li ñuy laaj mooy d'accord Ousmane Sonko dafa diffamé Mame Mbaye mais ñun sénégal yi am nañu droit laaj na suñu moniñ xaalis boobu disparaître anam li am lépp lëndëmte gi amoon ba Mame Mbaye Niang ñi bëggul ko ci taqal ba tax mu démissionné te Cheikh Yérim Seck ni woon démission orchestrée la démission orchestrée Cheikh Yérim Seck moom ni rapport am na moo tax question réponse bu kenn fekkiwul am diggante Macky Sall ak Mame Mbaye Niang ba tax mu démissionné ëlbati ko ni ni ni rapport amul mais c'est-à-dire ñii Sénégal yi ñiy wax ci wàllu politique kan la ñu yem coow li mooy Ousmane Sonko waxuma mi ngi ci dëgg wala nekku nekku ci dëgg Mame Mbaye Niang waxuma mu ngi ci dëgg wala nekku ci dëgg mais ñoom suñu gouvernants yi ak suñu homme politique yi nga xam ne lu yàgg-yàgg balaa suba dañuy folleeku waruñu leen a bàyyi ñuy décrédibiliser suñu justice ba nga xam day àtte ba noppi nga ne waat la ñuy fële naan bëgguma bëgguma bëgguma bëgguma li mu àttee ngir indiwaat beneen coowaat beneen coowaat chercher pour chercher lan pour fexe ba Birahim du mën a nekk candidat ci élection fexe ba Birame du mën a nekk candidat ci élection c'est-à-dire yooyu moo rafetul ci ñun waa Sénégal gis nga ñi di politique ñoo transformé Sénégal yi ay ennemis ci doxalin wu méngoowul ak yoon te coow li coow li ñun askan bi lañ bëgguñu dem di manifester di teew yi bëgguñu assister kuy tooñ mais coow li yëpp cëppaandoo ji mooy ana poñon bi munuñ bi la ñu soxla vingt-neuf milliards yi ana moom c'est ça d'accord sax Birahima mu nekk ay euh, propos yoo xam ne kii di Pierre Olivier Sur bokk ci ñuy layoor Mame Mbaye Niang yëkkati na ko ñu jàpp ni peut-être am na loo xam ni euh, yoon mu ngi koy euh, waajal ci procès bi. waa yoon du ma wax yoon mu ngi waajal. Mm-hmm. yoon amul pour waajal. Mm-hmm. xam yoon lu muy def. xool ne ni lii mooy code de procédure pénale code pénal ci lu jëm ci wàllu délit wala euh, lu ñu la accuser nit ki mu xool ne ni selon l'article nangam de la loi selon l'article nangam mu sukkandiku ci élément de preuve yi ñu koy jox mm-hmm. xool ci wàllu code pénal code de procédure pénale mm-hmm. lan la ci article nangam wax lan la ci nangam wax mm-hmm. mu sukkandiku ci loolu ngir bu dee dafa war a teg daan mu dee dafa war a teggi tuuma mu teggi tuuma waaye yoon amul lu muy préparé. mais bu fekkee Ousmane Sonko moom gëm na ni peut-être. li tax mbir yi yeex lépp dafa am loo xam. ñu koy waaj parce que def na ko récemment ci sortem bi mu jeex. Ousmane Sonko moo wax. Mhm. kan moo wax un homme politique bi nga xamee ni dafa am ay mbébét ci lu jëm ci élection présidentielle 2024. Mhm. ci lu jëm ci Sénégal de manière générale. Mhm. homme politique boobu bu jàppee ni am na luñ muy am na lu lu lu nit bëgg jaarale ko ci yoon. Mhm. pour am wala arriver à ses fins mu jàpp ni am na lu nit bëgg bëgg jaar ci yoon pour mhm. dindi ma ci élection ma bañ a bokk euh, mu ne duñ ma def la defoon Karim. Mhm. duñ ma def la defoon Khalifa Babacar muy communiquer ci wàll woowu ma ne wax naa ko sànq ci tubaab. benn procès bi mooy mbirum Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko diffamation mais moi je reste convaincu que coow lu coow li ce n'est pas ce procès coow mm-hmm. li xam nga ban la procès aji Sarr Ousmane Sonko te la may ca waxoon yaa des temps ci ginnaaw moom laay waxaat tey mooy am na ko buggul procès boobu est-ce que c'est Ousmane Sonko c'est une question est-ce que c'est le régime c'est une autre question Adji Sarr moom nee na ni mm-hmm. nañ dem procès na yëkkati doom waxaat dëggal na ni dama bëgg ñu jàkkaarloo ma ak moom face à face ci procès Ousmane Sonko ca njëlbeen mu ne dama bëgg ñu setal sama der te loolu maa ngi xaar yoon bés bu ma wooyee ñu dem tontu ci loolu ñu setal sama der hmm. ci ginnaaw gi nag mu am changement hmm. ci ginnaaw gi mu am hmm. changement ci diggante dama bëgg procès bi taxaw bu dee suba suba ma dem fa suba suba gannaaw gi ñu ne nag léegi Euh, ay la yoon procès boobu sax man gudd boo bëggatuma désobéissance civile lépp lu jëm ci wàllu justice bokkatuma parce que dañu am leen lu ñuy wut ci ban propos politique waaye nag yoon am na indépendance ba fii moi je reste convaincu que la justice sénégalaise elle est indépendante mhm. que justice sénégalaise elle est juste am na nag je le dis je le répète dans comme dans toute corporation ay brebis galeuses mhm. ñoo xamee ne peut-être euh, dañoo dugg ci Euh, métier bi waaye nekkul seen métier ndax nañu koy doxalee baaxul waaye li wóor mooy ni am na wàllu justice loo xam ne ñoom dañuy jàpp ni texte laay laay àtte. àttewuma parce que Macky Sall laaj ndax juge bi lijjantiwul kuy Macky Sall wala kuy Ousmane Sonko euh, Mansour muy wax sànq juge bi lijjantiwul yow yaay diw wala yow yaay diw xam nga lu muy mhm. lijjanti lii la ma nga ma jox ci firnde. Mhm. baax na wala baaxul ceeb bu la nga ma jox lii la ci loi wax. la ca waa loi wax. mën naa xool nag man en tant que nit. ne ni mën naa la àtte ma boole ci yërmande donte loi lii la wax yenn saa yi avocat lan la lay wax monsieur le juge dëgg la naam diw moo tooñ waaye euh, li ñuy lay ñaan mooy une application bienveillante de la loi xam nga loolu mooy lan loi bi mu ngi ci mm. waaye seetal bi ci gën a néew bi ci gën a oyof. donte moo def waaye mhm. seetal ma ci loi bi li ci gën a oyof mhm. nga teg ko ko application bienveillante de la loi mooy xoolal yow sa nite nga bañ a xool directement loi la mu wax mais seetal li ci gën a oyof ci loi loolu yëpp juge da koy def ay la yéwén arrêtons de jeter l'anathème sur les juges ou sur la magistrature mhm. comme ni ñu war a bàyyee di tuumal police wala gendarmerie parce que attention kii di tuumaal police police ak gendarmerie di tuumaal juge Euh, gis na bu président Macky Sall jógee wala régime bu mu mën a doon juge ñooy nekk des ay juge de mhm. police ak gendarmerie ñooy des nekk ba léegi ci wàlluk justice la ci mhm. wàlluk euh, yoon de muy euh, police muy gendarmerie ku ñëw doon président tamit di nga ànd ak police ñaaw ñoo lay ñoo lay lijjanti mhm. di nga ànd ak gendarmerie ñooy yore sax sa sécurité ka ah. ngay tuumaan tey donte général ba nga fa jëlee suba boo faloo teewul les éléments restent les éléments alors dafa am loo xamante ne mu ngi travaillé sama bopp euh, depuis la déclaration de Ousmane Sonko début ci guddi mhm. euh, lan la ñu mën a xaar ci procès bi tey euh, bu fekkente ne peut-être Ousmane Sonko nee na du teew ça c'est vrai déjà moom mu ngi Ziguinchor alors procès bi nga xaman ne moom moo war a dox diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang je pense que bu ñu juumul c'est la troisième fois ñu leen di daal di woo en appel. Mhm. en tout cas ci procès bi nga xam ne moom mooy kii. moom moo dox seen diggante Mame Mbaye Niang mu jël wàllum diffamation Ousmane Sonko di. qui ne sera pas présent. Est-ce que réellement on peut s'attendre à ce que peut-être ñu defaat la même chose renvoyer procès bi ou bien euh, ñu gis peut-être ñu gën a endurcir euh, li nga xam ne moom mooy peine bi peut-être gën ko yokk six mois de plus et à cet effet nag ci li nga xam ne moom la Ousmane ko di wax mooy euh, dindi ko wala tere ko muy samp na dem ci élection présidentielle 2024. Ousmane Sonko mën na bañ a teew ci procès mais il a des avocats ay avocats ñooy dem taxaw taxawal ko layal ko ni ñu Euh, ay avocat bu ñu ñëwul wala ñu ne ni ñun suñu client nanguwul ñu ñëw parce que am na lu des ci dossier bi mais le le le président du tribunal mën na ne nañu ko renvoyer bu ko renvoyer bu amee leneen lu mu war a yónnee ci kayit wàllu convocation ak yooyu mën na ko def waaye mën nañu ko renvoyer mais li li may wax sànq mooy am na lu nekk ci ginnaaw procès bi ci li Ousmane Sonko jàpp la nekk ci ginnaaw mooy lan nañu fexe ba tëj ma même ci des sursis plus de deux mois donc trois mois te ñu xam ne ci code euh, électoral bu la xësee tëj trois mois même bu dee sursis loo tëddul fayeeku la lu tolloog trois cent millions mais gàntal nañu sa éligibilité ba dootoo bokk moom loolu la jàpp ni looloo nekk ci ginnaaw bi les procès mais la ma waxoon. est-ce que jàpp nga ni mën nañu yegg ci loolu bi laay. waaw mais attends euh, il faut jamais dire jamais. ba pare parquet Mansour mu ngi koy souligner sànq. moom moo interjeté appel gannaaw bi parquet interjeté appel mu ñëw moom maam Mbaye Niang toftal ci moom it appel am hmm. donte je l'ai rappelé en français Mansour dellu si na ci il était satisfait du verdict ci oh. premier jour ba mu génnee jubilé na hmm. mais peut-être que jàpp na ni des na est-ce que yónni wuñu ko c'est une interrogation waaye li wóor mooy ni procès bi du coow li du procès bi mm-hmm. procès bi bi Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko foofu nekkul coow li coow li mooy Adji Sarr Ousmane Sonko te y a quelqu'un qui ne veut pas de ce procès mhm. euh, balaa ñuy jógee ci ci loolu Mansour bëggoon naa également ñu wax ci situation dëkk bi jamono ji saabu bu Ousmane Sonko